salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi kaddu yi nga xam ne aji maas di doomu ndeyu sumbulu xaritam génne na ko yéen ñëpp ngeen jot ko mooy Abdoulaye Diop xaas ak sumbulu ñoom ñaar danoo divorcé aji maas même loolu sax bu amoon waroo woo génn ci réseau di ko wax ndax xamoo sumbulu num koy gisee sumbulu lu baax laa ko xamee ñëpp dañ koo naw ci sëyam ak bëgg jëkkëram sëy yëpp ay am problème puis sëy bu dul am problème amul mais bu problème amee loo gis dañ koy régler mul bul génn rek dégg ne tël ne dag mu na ne danoo divorcé toog ci plateau di ko wax ñu lay jël en direct problème am na dëgg la parce que Soumboulou jël na oto Abdoulaye Diop xaas ànd ceeg rakkam dem boo ci digg ba ne ko damaa fàtte sama téléphone yaa ngi dégg demal jëlee li ma ko muy waa ji wàcc di ko jëli Soumboulou ñëw fekk Soumboulou taal oto bi dem yoonam kër Balla Gaye ba mu yeggee ba mu woowee Abdoulaye Diop xaas ne ko damaa bëgg a sama vie amee xam naa Diop tamit tontu ko ne ko kon noo ko sentir rek affaire de problème la mën na cinq jours cinq jours sumbulu bàcc ne mi ngi kër Balla Gaye mais loolu du divorce waxuñu ay ñaan baat waxuñu dara nit bu dara amee da ngay teey doo ñëw rek sa yëpp ay am problème doo ñëw rek toog ci média yi naan ñii danoo tas aji maas lu ciy sa yoon ci sëyub jàmmoor sumbulu ku baax la sumbulu mus sa def lu bon ñëpp xam xam dignitéem ak sëy gi mu bëgg Abdoulaye Diop xaas information yi daal du lu ñuy wax lu ñuy développé ci ay plateau waaw kay merci. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi aji maas moo génn daan ne Soumboulou dafa divorcé ak Abdoulaye Diop xaas même loolu bu amoon aji Mass loolu waru la yow Soumboulou sa xaritu benn bakkat la yéen ay ànd guddeeg bëccëg nga koy weer ci plateau yi di wax loo xamante ni wóoru la. sëy yëpp ay am problème bu amoon problème amee dana xool nuñ koy réglé mais bul ñëw ne danoo tas bul ne danoo divorce bala ngaa wax ay information na lay leer bala ngaa xam li ngay wax na lay leer aji maas léegi nag waa Sénégal yéen ñi may déglu dinaa def live léegi léegi connecté leen jéem a jot Abdoulaye Diop Khass jéem koo jot ba xam dinañ ma ci expliquer tuuti ngeen jëw déglu ko yéen ñëpp mais aji maas li nga def du dëgg du yoon trahir nga subulu lii kenn du ko def sa xarit doo dégg tële rek na damm na di génn di toog ci yi naan waaw dafa divorcé ak Abdoulaye Diop xaas kenn du def loolu loolu baaxul sayub jàmmoor lu ciy sa yoon sumbulu saykat la te bañkat la nit ku baax la kenn xamewoo ko lu ñaaw ba mu lay sëy ba tey maa ngi def live léegi léegi.